waaw sëñ fallu tey da nga laal point bu am solo boo xamante ni ay waxtaani waxtaan sax lay laaj <coughs> infertilité masculine feebar la boo xamante ni dafa bëri léegi ci suñu réew mi te mu nekk feebar boo xamante ni kenn nangu cee dut baaram déedéet xamul waral loolu maanaam ñun damay wax ne aada moonu moonu moonu moonu topp ñun dañoo topp aada Sénégal dañoo gëm affaireu aada tey boo takkee soxna boo demee moom at amoo leen doom ki ñu njëkk a xalaat mooy ku jigéen ki moom la ñuy yóbbu ci sëriñ moom lañuy yóbbu ci gynécologue moom la ñuy yóbbu fu ne da léeg ñu xamal leen ne kii ñu dara lu ko tere am doom waa léegi doom ñaara koy sos ku jigéen ki xool na ba sonn xam ne moom amul benn feebar bu ko tere am doom ku góor gi dafa war a jug mais day lànk ne du dem parce que ñun pour ñoom loolu benn genre complexe la quoi pour ñoom. góor gi mom bu amé problème bobu rek mom ay morom bu ñu ko yégué dañ ko yeb mais dom yalla moko joxé légui problème biñ am moy fébar la bo xamanteni li tax mu bëri bokku na ci yima lay bëgg limal manam gi dafa wara tollu ci wara mëna tak soxna tak ko lu ko ma yoy mëna ko dikal waaw parce que tay bo tollé ci wara tak soxna tay dañ wax ne. tubaab bi li ñuy def seen gëstu mooy fertilité bi nga xam ne moom la nit ki di am ku góor gi fanweeri at waaw parce que bu ñu nee fertilité ak infertilité fertilité mooy ki am maanaam mille chance waa am chaleur mën a am doom infertilité mooy ki nga xam ne amul chaleur boobu waaw léegi nag ki nga xamante ni fertile na dañ ne bu duggee ci fanweeri atam fanweeri ak juróom ba ñeent fukki day day nekk ci fertilité dëgg-dëgg mais bu ko weesoo day commencé am infertilité ndànk-ndànk comme ni koy ñu ko jigéen gi di amee ndax àdduna ni yàlla sàkkee nit yëpp ay affaire hormone la ay liquide la yu nekk ci yaramam liquide yi dañuy màgget di bees di defarwaat bu commencé am jafe-jafe rek problème day am ñeneen ñi tamit dañuy jëfandikoo tux cigarette te tux cigarette bokk na ci cause yi nga xam ne day rey fertilité doomu aadama ñii jëfandikoo alcool yooyu yëpp bokk na ci ko indi yaa ngi dégg kon li li ñuy njëkk wax rek mooy nañu jéem a xool sabab yi sabab yi gis nga feebar yi ma lay bëgg a limal bokk na ci yi indi infertilité masculine gis nga nit ki ginnaaw bi ko yàlla bindee ba noppi dafa am jumtukaay bu mu ko jox muy awra jumtukaay boobu di génne ndox ndox moomu di sos doom ndox mi nag dañ la wax ne dafa am ay wallax yu ci nekk waaw ñu ko wax spermatozoïde ñoom ñi nañ seen valeur ñi ne 20 million lañ war a doon pour mën a nekk doom te li gën a siiw loolu lañ wax ñeneen benn toq man yu boo génne mu dem ci ko jigéen ki yow jàppal ne génne nga 20 millions wala moo tax yàlla xakim la waaw damay wax nit ki li koy li yàlla dëxañ ci moom ci ay millions xajul ci jëmmam léegi nag bu fekkee ne yooyu dafa am lu ci manqué nee nañ doom du gaaw a sosu loolu la tubaab bi wax oligospermie te loolu ay appareil ñooy mën a gis loolu mooy li ñu wax spermogramme maanaam tey nit ki bu amee jafe-jafe am doom day dem defi ji spermogramme ñu xool spermam ndax spermatozoïdes yi doy nañ wala doyuñu su ko defee oligospermie boobu nag li fekk nit ki mi ngi ko amee ñaare mooy ñi nga xam ne des fois sax danañ danañ danañ sos doom jigéen ñi dem ba trois mois mu yàqu mu avorté parce que li ñuy wax maanaam. ni ni yaram wi ni ni ni wallax njaani war a matee mateewuñu noonu ba tey ni mu dalee ku góor ki tamit noonu lay dalee ku jigéen ki ci infertilité waaye nag comme tey góor la ñuy waxtaanee góor la ñuy gën a jam baaraam léegi am na koo xamante ne nag moom amul oligospermie ndax oligospermie sax ku am am nga mille chance ndax ñu defaraat gi am na koo xam ne nag li ñuy wax azoospermie la am azoospermie mooy kooku moom boo xoolee yow la njaani amu dara dara waxa boobu moom amul dara moom waaw kooku tamit li fekk mi nga amee loolu du am doom te bokk na si si ñi leen xamee dangay gis sax nit la koy jàmbat man sama ndoxum man yi dafa oyof walla dafa néew bu génnee tuuti lay génn wala woyofaay bi daal jaaxal na ma walla farul tey dafa am ay xeetu form yoo xam ne moom la wala wala moom la ndoxu man yi bu war a am pour mën sos dom bokk na ci muy génne lu xawa bari tuuti ñaaral bi dafa wara am couleur bo xamne dafa pâle mel lu xawa jaune ba dafa wara far dafa wara sax ànd ak xet boo xam bu tay di nga xamne ne amna am lu génn fi loolu yëpp amul nak ñaare pour nga sos dom day jafé am ci si xamanteni teni, dañu am euh, fièvre bu ñu wax varicocele varicocele fièvre la bo xamanteni ci testicule yi lay nekk mooy li ñuy wax ñaari way doñ yi su ko defee wolof di ko waxee xuur ndax tamit jàngale rek dañuy jàngale waaw parce que su ma nee testicule boo ko doon tekkee tamit loolu dong lay tekk xëy na ma wax ci français bu ko wax ci olof mu nekk problème foofu la ñuy nekk problème bi mooy dañoo am ay foofu ay veine yoo xam ne ñi ngi nekk foofu ay sidit góor gu nekk gis nga